dal leen ak jàmm ami site internet réew mi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy do rek nouvelle bu neex bi nga xamante ne kii di Cheikh Bara Ndiaye la dina koy am nag ni ki tey ji ñu fàtt leen kii di Cheikh Bara Ndiaye moo nekkoon journaliste chroniqueur foofa ca diwaan bu Walfadjri ni ki tey ji nag am na ab liberté provisoire wante nag dinañ ko génne sous contrôle judiciaire ki xam le mbir mu nu mel di avocat bi di woy ci turu maître moom nag ni ki tey ji rek la ko daal di xamle waaye nag boobule liberté dafa ànd ak ñetti condition bu njëkk bi nag moom mooy di signer chaque weer bu dee wante nag mu bañ wax ci bopp dossier si boobulee dossier beneen bi ci toppaat nag mooy mu génn ci réew mi rek sans mu am autorisation ndax ki xam ne mbir mënu mel nag di avocat bi ñu fàttali leen ne chroniqueur bi nag mën nañ koo bàyyi ginnaaw rek moom Cheikh Bara Ndiaye nag bi mu dakkale woon xiifal bi nga xamante ne rek kii di sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké sàkku woon na rek ngir mu daal di koy arrêté du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàtte abonné bës cloche de notification ngir gën a am ak yeneen info jërë ngeen jëf ci teewlu bi.